acteurs politiques n'ont plus confiance président de la République. nañu dem dialogue ñu toog ñu waxtaan ak moom. est-ce que weesuwul. ñu fi ñu ko waroon def non fii. xam nga lan moo lan moo lan moo lan moo baaxul mooy ñu ne fii fukki weer moo ci des ñu yàq loo xam ne ne suñu toogee 40 ans duñ ko defar ñu ne fii fukki weer moo fi des. ñu yàq fi loo xam ne ne par rapport à la paix par rapport à la sécurité mm-hmm. par rapport aux infrastructures par rapport à l'emploi par rapport à beaucoup d'efforts yu ñu defoon mm-hmm. ñu yàqu ko te mun nañu toog dix mois ñu xaar mais en en en de rester dix mois de plus est-ce lu Sénégal construiroon en vingt ans avec non euh, non non non non non non fi dara xam nga xam nga xam nga xam nga nit bu nit bu toog nit bu toog xam nga xam nga nit bu toog mu ne man duma ma représenté wu. tout le monde a applaudi. ñëpp applaudir mu dem gis fissure si miir bi. mu ne nañ ko defar ba pare nit ñi continuer mur bi ma dem sama yoon. bokkaatutuma dafa ne moom bokkaatul nit ñi dañ ko dañu jël kii bi ñu ne nañu nañ ko toxal dix ans. ce n'est pas un ce pas une annulation ce n'est même pas presque pas un, un report mais c'est un décalage. boo xam ne dañu nañ ko pouse dix mois nit ñi mën a toog ñu waxtaan. Mhm. ñëpp waxtaan. parce que parce que xeexoo am na fi. quoi qu'on puisse dire. Mhm. Euh, euh, xëccoo bu métti métti amoon na fi yàqu-yàqu amoon na fi. te yooyu yëpp pour ñu defaraat ko il faut que nit ñi toogee waxtaanee ko.